yàlla ne yaa ayuha allazina amanu ee yéen ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla laay waxal nag ku gëmul yàlla waxuma ak moom ku gëmul yàlla bokkul yaa ayuha allazina amanu yéen ñi nga xam ne dangeen dugg ci daa iratul daairatul iman ba farataal nañu aleykum ci yéen asiyaamu koor kama kutiba nuñ fa nuñ ko farataalee woon ala lazina ci gaa yi nga waral gaa yi nga xam ne min qablikum ñi leen jiitu woon la laallakum ngir yéen tax tattaquuna ngeen mën a ragal yàlla mhm. ngeen ragal mooy ndax koor dafay dàmm dafay dàmm bànneex bànneexu bàkkan laalakum tattaquun ngir mën ngeen mën a ragal yàlla ragal yàlla goo xam ne dafay nekk ci seen xol waaye du nekk ci seen yére walla ci seen sikkim walla ci seen melokaan déedéet dafay nekk ci xol yi dafay am jeexit ci seen xol ragal yàlla gi yàlla moo la sant nga woor nga woor koor dafa ànd ak xiif dafa ànd ak mar dafa ànd ak coono waaye soo demoon tey sa kër am na frigo boo xam ne walla congélateur am na ay lekk soow a ngi foofu ah ginaar a ngi foofu fruit yaa ngi foofu mais li tax ñemewoo koo lekk at taqwa mok ko won taqwa nga lekk ko ndaxte li la tere lek du sa ndey tere du sa tere du sa tere du président de la république mo la ko tere du gouverneur du préfet du sous-préfet du magistrat bi du du juge bi du ah Ya mom sa bopp su la neexee nga dunun, a woor yow ak du nga mar lépp dagan la ci yow yow yaa ko fàggu sa alal la te ñemewoo takwa laal li tax ko wax taqwa waaw taqwa taqwa bi moo tax laaloo ko ñemewoo ko sañoo ko taqwa mun nga nëbbatu waxuma sax su la neexee sax nga lekk ni ma maa tey lu ci waay man waaye soo ñemewul loolu itam nga mën a sàcc tëj néeg bi ah, lekk ba pare fomp sa gémmiñ génn ku koy xam moo tax yàlla ne kullu amali ibni aadam kullu amali ibni adam lahu illa sawm lépp jëf jëfu doomu aadama yépp moom la ñeel mun naa am sax ma délégué malaaka mu fay ko illa sawm ndare koor fa innahu lii wa ana ajzi bi koor moom man maa ko moom te man maa koy fay parce que man maa yër xol yi maa yër biir yër biti xam ku wóor ak ku wóorul kenn mënu ko vérifier ku dul yàlla moo tax yàlla neen wuutalu ci kenn man maa koy fayal sama bopp wa ana ajzi bihi su ko defee nag laalakum tattaquun ngir ngeen mën a ragal yàlla benn su koor gi paase itam laalakum tattaquun ba ba tey ngir ngeen ragal yàlla su koor gi jeexee mu am jeexit ci yow yéen waaw soo wooree soo wooree su doon da nga am alal te xiif su ëllëgee ma ñëw di la ñaan dépense walla di la ko leb ma ne kër ga dara amu fa di nga xam ne xiif ni mu méttee di ma ko jox nga xam ne ah xiif kat ñamoon naa ko ci koor ak yu mel noonu ak yu mel noonu da nga doon jëw ku tàng xol nga gaaw a xeex yooyu yépp dina am jeexit ci yow ku la tooñ nga mën ko muñ parce que yaa ngi ko doon exercer ci weeru koor dañoo nit su xuloog yow ne ko inni saa imun su nit ñëwee di xuloog yow bëgg xulook yow wax wax ba nga ne ko inni saa imun man kat dama woor dama woor kon ku woor du xeex ku woor du xuloo du ku woor du ŋàññ ku woor du saaga du wax waxu mboosóor man lam yada qawla zuhur zuhur wal amalu bihi fa laysa lillahi xaajatu xaajatun fi an yada ah taamuhu wa sharabu képp koo xam ne danga woor ba pare te bàyyi woo waxu mboosóor yàlla neen awma soxla ci bàyyi gi nga bàyyi lekk wala bi bàyyi bi nga bàyyi naan sama soxla amu ci sama yonnewu ci kon ku wor gis nga wor asawm mustaqun min asumti bat bi ñu ngi koy ñu ngi koy xotte ci saw ci sumtu fa imma tarayna min albashari ahadu fa quuli inni nazartu li rahmani fa sawman falan nukallima alyawma insiya kon sawmu soo wooree gémmiñ gi dafay woor làmmiñ wi ndax làmmiñ ci biir gémmiñ la ne kon làmmiñ wi dafay woor bakkan bi dafay woor bët bi dafay woor ba du xool lu neexul yàlla tere woon nañ la ko avant gi sax waaye nga bañ xool li neexul yàlla nopp wi dafay woor ba doo déglu lu neexul yàlla tànk bi dafay woor ba doo dox lu neexul yàlla loxo bi dafay woor boo doo laal lu neexul yàlla kon yow daanaka malaaka nga ci jamonoy koor walla nga ëpp malaaka martab parce que ma malaaka amul shaawa amul bànneex amul bakkan am bànneex du noonu seytaane topp ko du lekk du naan du nelaw du sëy du fase du amul lenn mën a robot la robot jaamu yàlla kese kese lañ ko bindee mu koy def yow nag am nga bànneex hmm? dangay lekk dangay naan dangay nelaw di yeewu ah dangay kaf dangay foo dangay ree dangay ànd ak soxna yi lépp nag ci weeru koor ñu tere la ko kon yow yaa ëpp martaba malaaka parce que malaak moom de ko am da koo amul da da ko xamul yow nga xam ko ba pare bàyyi koo dem ci kooru malaak ci ci ci waxtu koor bëccëgu koor yaa ngi mel ni da danga dugg kooru malaaka te yow yaa leen gën a foor parce que yow ñoom amul li ñu yëg te yow lépp da ko yëg mais danga ko bàyyi te yàlla tax moo tax wante suumu xayrun ko su ngoon su ngeen xamoon li nekk ci koor même sarax bi ñu leen sarax ci su ngeen tukkee ngeen bañ a woor walla su ngeen xamoon li nekk ci koor da ngeen di woor rek yàlla de ko def benn palanteer rek pour sa waaye su ngeen xamoon li nekk ci koor da ngeen di woor kon yàlla ne ba farataal nañu aleykum ci yéen asiyaamu koor bëccëg bi yépp dañ koy woor bu jëkk soo wooree bëccëg su guddi su guddee doo ak ànd ak soxna yi doo ànd ak soxna yi ah soxna kay moo tax ñu wax su du soo soxna kay kenn du wax soxna loolu kay waaw kay bu jëkk ah, bu jëkk <laughs> bu jëkk loolu loolu moo amoon mais saaba yi nag saaba yi nag dañ doon nëbbatu am ñu sant ba ah, ak sàlleen yi ak ndaween yi ñi sant balde ak séeréer yi dañu doon nëbbatu di ànd ak seen soxna su bët sete ñu nëppi wax nañu Umar ibnu Xataab benn bés loolu de koo dal ba mu ànd ak soxnaam ci guddi gi bët set mu ne dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko am na lu xew de moom ma ku dëggu woon Omar ibnu Xadaab sama turando ku déggu la kooku yonent bi sallallahu alayhi wa nee na suñ ma yónniwul woon Omar la ñu yónni mu ne seetaane dafay daw Omar mbedd mu mu soobu seytaane dina ko da daw 40 jours du soobu mbedd moom Omar mooy ki nga xam ne su yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon moom dong moom moo amoon audace ñëw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko li nga wax ndax yàllaa ko yàllaa la ko wax digal su ko defee ñu appliquer rek amul amul xalaat su fekkee ne na saa xalaat kese nga bàyyi ñu xalaat cetëtëtëtë ku waxeem xat la xat benn bés dafa am benn yahut bu joteeg benn naafiq naafiq mooy koo xam ne dafay ñëw ci jullit yi nekk jullit su fa jógee dem nekk yéeféer mu joteeg benn yahud yahud bi dem ci yonent bi sallallahu alayhi ñu dem atteelu ji ci yonent bi sallallahu alayhi mu attee leen bi yonent bi attee ba pare jox yahud bi dëgg ci kaw naafiq bi naafiq bi dem ci Omar ibn Khattab mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam de damaa joteeg diw dem naa ci yonent bi nag nii la ma àtte mais àtte bi neexum parce que ni mu àtte man d'accorduma ci mu ne nan la ko àtte mu jaaraat ci ñu ne yonent bi sallallahu alayhi nii la ko àttee te jox na yahud bi dégg mu ne ak yonent bi nii la ko àttee mu ne ko kii kon mu ne ko kon xaar ma mu dugg ci biir génne jaasi ne baat bi tàppit mu ne képp koo xam ne yonent bi atte na la te neexu man su may attewaat nii laay at mu jeex ku dégg woon la amul naafiq amul par parlo dégg rek dégg rek tàng jër nag waaw kon ba farataal nañu alekum ci yéen asiyaamu koor kama ba nu ñuy farataalee woon alal lazina gaa yi nga xam ne min qablikum ñi leen jiitu woon ci ay xeet la laallakum tattaquun ngir ngeen mën a ragal ngeen mën a ragal yàlla gis nga koor gi nag ayyaaman ayyaaman maadudaatin dégg nga ay bés yoo xam ne maadudaatin yu ñu lim dégg nga ayyaaman maadudaat léegi léeg mu nekk fanweer léegi léeg mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent dégg nga waaw fa man kaana képp koo xam ne nekk na minkum ci yéen xiinu shuhudihi bi mu gis weer wi bi weer wi di teru maridan mu nekk aji feebar aw ala safarin walla mu nekk ci tukki tukki goo xam ne dagal na ci moom mu wàññi tukki gi kon fa iddatun min ayaamin oxar na dog bañ a woor mu lim yeneen yi bés dëng min ayaamin oxar ci yeneen bis yasuumaha mu woor ko badalan badal badalahu mu watti ko wa ala lazina war na ci gaa yi nga xam ne يطيقونه ولا يطيقون لا لا بمحذوف لا نيغا خامني اتانو ني وور لكبار غير ماغيل او مرض ولا فيبر فيبر خامني لا يرجى برا برا براءه ولا برؤه فيبر بو خامني ياكوارو ني ويرم نيغا خامني دانيو امي تاشيون بو خامني بو كورونيك ñi nga xam ne dañu am ulcère boo xam ne bu chronique ñi nga xam ne dañu am jabet dañu am ñoo xam ne feebar boo xam ne docteur nee na waroo woor soo waa wooree mën nga ci loru kooku ñoom fa fidiyatun dañuy def jotu taami miskinin muy euh, taami taamu miskinin leyal benn miskin dëng fi kulli yawmin dégg nga wax ji képp koo xam ne dangaa feebar waaye feebar boo xam ne dalaa dab wérul ba weer koor gi ñëw fekk la ci feebar bi walla kat yow tàmmale nga tàmmale nga woor waaye nga feebar ci diggante bi kooku dangay dog ba heure boo wéree nga àggale àggale li des nga konte bés yi nga feebar su koor gi jeexee nga fay ko walla su fekkee ne weer wi bi muy taafeerlu boobu da fekk dafa fekk nga feebar wéroo ba weer wi jeex wooroo ko kon soo demee ba wér dangay woor bu dee fanweer fan la ñu wooroon nga woor fanweer fan bu dee ñaar fukk ak juróom-ñeent nga woor ñaari fukk ak juróom-ñeent su fekkee ne feebar boo xam ne du wér yaakaaruñu mu wér anu feebar yoo xam ne dee rek waaye du wér kooku heure bu ñu xëyee woor rek yow dangay ngay xëy joxe luy ndogu jullit su fekkee ne julli téeméer ndogu na ko nga joxe téeméer su fekkee ne téeméer ak juróom fukk moom mooy moo koy mooy mooy doy nga joxe loolu su fekkee ne 1000 francs moom moo koy dépense ci ci weeru koor gi nga jox ko ko ah ba bi jeex noonu yow noonu ngay wooree doo fayul sa koor mooy leele sa koor mooy leele fa man tatawwa képp koo xam ne dafa coobarew xayran yiw mooy lan wax nañu ne téeméer nga war a joxe par jour nga ne ah man de mën naa comme que mën na yàlla dénk na ma alal mënuma woor waaye mën naa joxe ma ne ko téeméer la ñu waxoon waaye man ñaar téeméer laay joxe wala ñeenti téeméer laay joxe par jour gis nga ñetti téeméer yi ci tegu yàlla neen ma fay la ko dégg wa man tatawwa képp koo xam ne dafa coobarewu xayran yiw bi ziyaadati ala al qadri al mazkuuri fi l fidyati fa huwa xayrun yiw la lahu ñeel ko waawa anta suumu su ngeen wooroon xayrun moo gën lakum ñeel yéen min al iftaari wal fidyati woor moo gën ci ki nga xam ne dafa dog ci tukki moo gën ci ki nga xam ne dafa feebar ba munul woor de leele yooyu yépp koor a ko gën waaye nag soo munul lii soo munul lii yàlla nee na nga def lii li ko yées laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla toggul bakkan lu dul lu mu attan yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla ak jàppandal ak yëwanal la leen yéene waaye yéenewu leen jafeñ-jafeñ coono moo tax soo mënul woor rek nga layele lool la soo tukkee te mënoo woor ci tukki gi yàlla ne dogal yàlla neex na jubal de wa anta suumu su ngeen xoo wooroon خير مو گن لكم نيلين ان كنتم دم نك نين تعلمون دي خم انه خير لكم ففعلوه تلك الايام نين كو ديف تي بسيله يالا ن شهر رمضان وير كور الذي ميغا خمنه انزل واتي نان فيه تي وير بي القران قران من الله المحفوظ الى سماء الدنيا في ليله القدر يالا ن مو واتي وير كور جيلي كو ci saaru ramadan ci weeru koor moo wàcce alquran ci weeru koor mu wàccee jële ko min allawhil mahfuz ila sama idune ci ba asmaan suñu tiim si mu wàcce ko nag fii laylatil qadr ci guddi laylatul qadr la ko wàcce dégg nga mu nekk njub linnaasi ñeel nit ñi wa bayyinaatin ak aayo yu bir ya ah, min al ci njub dégg nga bi ma yahdi ila al xaqi min al sabab bi nga xam ne yahdi jubal na ila al jëm ci dëgg min al ci ay atteem wal furqaan ak furqaan mimma yufarriq bayna al wal baatil ci loo xam ne dafay teqale diggante dëgg ak caaxaan fa man shahida képp koo xam ne fekke na ah fa man shahid waxul ko ko gis de fa man shahid képp koo xam ne fekke nga minkum ci yéen a shahra weer wi fekk na la ci àddina nga dund di wér fal yasumhu na ko woon fa man shahid képp koo xam ne fekke na minkum ci yéen a shahra weer wi fal yasumhu na ko woor wa man kaana képp koo xam ne nekk na maridan di woy feebar aw ala safarin walla mu nekk ci tukki fa iddatun min ayaamil uxar na lim yeneen bés yoo xam ne mu fay ko su koor gi jeexee soo koy fay nag du obligatoire nga toftale ko dégg nga wax du obligatoire ci yow nga toftale ko yow kay limal rek fukki fan la wala fukki fan ak juróom la su la neexee nga woor tey suba nga noppalu woor ginnaaw suba ginnaawaat suba nga noppalu wala nga woor ñaari weer nga ñaar ñaari ñaari fan dégg nga eh, noppalu juróomi fan en tout cas na mot rek na mot li nga li li liñ lay toppee ah na mot wala weer wu nekk nga woor ci ñaari fan wala ñetti fan na mot rek na nga compter na nga compter heure boo wooree rek nga compter ba mu mot xam nga kii neex na jubul ah? yàlla santaane santaane santaane bu rëy ni koor diggee pay goo xam ne bi bi nekk ci koor kooku ku jubawul ak moom du doo jubóo kenn ndagam su ko neexoon de mu santaane ko te du ci teg pay du noonu ndax moo bind mooy dundal mooy rey mooy wërsëgal du noonu waaw kay mooy rey mooy dëkkil moo mooy xisaab moo yore ajjanam yore safara su ko neexoon bind ñu ñu bind rek fayuñu ko est-ce que ñun ñoo sàkku yàlla bind ñu déedéet yàlla ci coobareem la bind mbindeef yi du noonu mu bindale bind la bindin woo xam ne wu la neex du noonu defu la mbaam xuux defu la nag defu la xar mu def la nit boo xam ne tànk yi dañu sëpp bopp bi jëm kanam kaw ngay doxe ñaari tànk te sa doxin déngul lu dul koo xam ne dafa ame laago ah suñu bëggoon wax wa in taudu nicmatallahi laa tusuha su ngeen jéemoon lim xéewal bi yàlla bi leen yàlla defal laa tusuha mënu leen ko takk mu mënu leen ko wàññi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne lu dul ñu topp ñu jaamu ma du noonu kon jaamu gi rek moo ñu war moo tax am na ñoo xam ne nit yàlla yoo xam ne duñu jaamu yàlla ndi ngir bëgg àjjana duñ ko mu euh, kii bàyyi mooy ngir ragal safar déedéet dafa war rek ñu def ko yàlla bind ne jaamu leen moom ñu jaamu ko tout court c'est tout leneen amu ci waaye nag yàlla ci mbaaxam ci tedd nga am dina ne defal li ma fay tey li ngay def yépp sa njëriñ yuridullahu yàlla namm na aleykum bikum ci yéen al yusra jàppandal wala yuridu nammul bikum ci yéen al usra jafeñal dégg mu ne wali tukmilul iddat ngir ngeen mën a matal al iddat lim ga iddat sawm ramadan wali tukabirullah ngir ngeen mën a tudd yàlla inde ikmaaliha su ngeen demee ba matal ko ah su ngeen di julli ji nu ngeen def allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila du noonu allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ngay dem di julli ji di tukabbirullah ala mahad di tukabbirullah ngir ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci limu len leen jubal wala lakum ngir yen tashkuruna ngir mën sant yàlla ala zalik dégg وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل benn mbooloo ñëw na ci yone alayhi salatu wasalam ñu ne xam lu ñu bëggoon dañu bëggoon xam ndax yàlla dafa sore su fekkee ne yàlla dafa sore ñu daal di yuuxu suñu ñaan ñu wax ci kaw su fekkee ne dafa jege nag ñu wax ndànk yàlla ne aay bi wàcc wa isa saalaka ibaadi wa isa saalaka ndeem laaj na la ibaadi sama jaam yi anni walis man anni man fa inni man qaribun aji aji jege la ujibu maa ngi wuyu addaawata daa'i ah, addaawata daa'i woote aji woote isa daani ndem man la woo ah. képp koo xam ne woo na ma danaa ko wuyu ndagam man la woo xam woo yàlla boole ci dara kon woo yàlla woo yàlla ba pare bokkaale yàlla moom loo ko boole rekk mu génn ci moom ujibu daawata daay daa daan képp ku ma woo danaa ko wuyu ndegam man la woo man yàlla fal yastajibu lii ñoom itam nañ ma woo nañ ma jaamu wal yuuminu nañu gëm bii ci man yaduumu alal imaan bii ci man laallahum ñoom ngir ñoom yarshuduuna ñu jub dégg yàlla ne uxil la dagala neef la dagal kii dagal nal nañu uxil la daganal nañu lakum ñee leen laylata siyaami guddi koor ar rafasu jonjo ila nisaaikum jëm ci seen soxna yi waxoon naa leen sànq bu jëkk weeru koor guddi gi amoo droit ànd ak sa soxna bi ko Umar ibnu Xataab defee nag ba ñëw aaya bi wàcc uhillat léegi nag daga daganal nañu lakum ñeel leen laylata siyaami guddi koor arrafasu mooy jonjoo ila nisaaikum jëm ci seen soxna yi xunna ñoom libaasun càngaay na lañu seru càngaay lakum ñeel leen waa antum yéen góor ñi itam libaasu càngaay ngeen laxun na ñeel leen fii wax ju rëy moo am wax ju rëy bu am solo waaw yàlla neen na libaasun lakum wa antum libaasun lahun sër sër tuddee nañ leen sër boo xam ne moom moo lay sàng te su la sànge dara du feeñ yéen jëkkër yi itam ay sér ngeen yéen a war a muur ndaw si ba dara du feeñ waaye su fekkee ne ne ñaar ñëpp kenn ku nekk ku lu mu xamal morom ma waa mbedd mi yéeg ko te yàlla waxul woon loolu hunna la lakum wa antum libaasun lahunna kenn ku nekk danga war a suturaal sa morom dangay am ay sikk xam ay sikkam nga suturaal ko man nit ku nekk am na sikk ku góor ki dafa am ay sikk jabar ji ko moo ko gën a xam mu sàng ko sutura waaye jabar ji itam dafay am ay sikk ku góor ki sàng ko sukur sutura hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum kenn ku nekk yaay sàng sa moroom waaye suñ demee nag bay weerante jaratu ko léegi-léegi nga gis ñoo xam ne sax da ci ci ci ci internet ak whatsapp yi ak yooyu maanaam daal seen ménage yépp ci internet whatsapp ay noonu la de waa kay ci la ñu di dis discuter ñëpp di ko dégg ñëpp ji ci jot loolu loolu loolu loolu nekkutul sëy waaw kay problème bu am sëy ci seen ci biir néeg bi ñu génne ko ci réseau réseaux sociaux yi te réseaux sociaux nag sëy su fa demee dana nekkatul sëy yàlla ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun nañu suturaalante nañu suturaalante gis nga maa ngi dégg ci mu Moustapha si muy nett li mu ne benn góor dafa joteeg jabaram fase ko mu taseeg benn moromam mu ne ko dégg naa dangaa faseeg sa jabar mu ne ko waaw mu ne li leen boole mu ne ko ah bi mu nekkee sama jabar de soo ma laajoon ma wax la lii moo ñu boole lii ñu boole waaye comme que fase naa ko jigéenu jàmbur la sañu ma wax ci moom dara dégg nga wax ci waaye loolu fulla la waaye ñun waaye dégg naa euh, da ngeen am problème rek nga commencé ratatata moom kay dafa demoon fale bu guddee fii dama gis portable am mu am whatsapp am tel tel tel euh, euh, numéro bii tel tel tel te keroog sax bu mu demee xew loolu rek nga commencé dara rata rata rata ku jigéen ki kazalik waaw moom kay léegi ah léegi ndoxaan moo ko gënal gënal gënal gënal këram de léegi lu mu am mu ngi ci àll bi de te tat tat tat tat loolu an hunna libaasun lakum wa antum libaasun sëy moom su su sutur amatul bu yeboo rek ñu ñaanalante yu ba rek bu yeboo rek ñaanalante parce que lii xew ci biir kër gi dañ ko yóbbu ci mbedd mi ah kenn dootul am sutura ci yéen parce que mbedd loo foo romb mbedd mi dina di la ko xoole loolu baaxul waxantuma nag ngin am njaboot ngeen am njaboot ki nga amal njaboot doonte dangaa fekk bu dee jigéen dangaa fekk sax góor ci kawam mun nga ko wàcc wàcc ko waaye suñ la laajee nga ne koy sëy dagan na fase dagan na mënatuñu ànd rek kiin waaye soo ko waxee xam nga ne sa doom su daagoo ci mbedd mi mu ñu wax ko ko te yow yow yaa ko ko def yaa ko ko def yaa yaa yaa détruire dundam parce que ay moromam dañ ko koy wax fu mu xuloo ñu wax ko tey te yow yaa ko wax doom nawle la te soo soo waxee ndeyam dara ñu wax ko ko yow ku jigéen kii itam soo ko waxee baayam su demee ci penc mi su fa xuloo ñu wax ko ko te yow yaa yaa ko tooñ moom doonu ci dara doonu ci dara moo tax gis nga bii balaa muy génn war nañ ko hmm? war nañ ko wënd wëndil ay yoonu yoonu yoon balaa muy génn benn waaye dañoo dañ ko wax ne demal indil ma benn buur ne ko demal indil ma lu gën a baax ci nit hmm? mu dem dàgg làmmiñ indi mu ne ko waaw indi nga làmmiñ bi woon d'accord léegi danga demal indil ma lu gën a bon ci nit mu dem dàggaat làmmiñ indi mu ne ko waaw lu gën a baax nga dàgg làmmiñ lu gën a bon nga dàgg làmmiñ mu ne lu baax làmmiñ a ko baaxal waaye lu bon làmmiñu ko bon lu yàqu rek làmmiñ fajaar moo tax làmmiñ war nañ ko sàmm ba suy génn na xam li tax mu génn naa si linnaasi na ngeen waxal nit ñi yiw lépp loo xam ne xamal nga ko ci mbaax nga wax ko loo xamul ah, ci walla li nga xam ci safaan nga noppi ko doonte néew doonte néew yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne uzkuru mahasina mawtaakum su nit génnee àddina lépp lu ngeen ko xamal ci yiw ak mbaax wax leen ko léegi lépp lu ngeen ko xamal ci safaan ngeen nëppi parce que yàlla dafa yónni ay malaak ñuy def reportage ci aji deej ñuy laaj dëkkandoo yi jullit yi lu ñuy wax ci moom kon su fekkee ñu ngi déglu ngay wax ci man loo xam ne jaaduwul loolu la ñu yóbbu nga lor ma fekk soo noppi woon wa wàññiwuloo dara kon ñu teg foofu seen baaraam ba ëllëg incha allah ñu ngi yàlla ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq ak taysir yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla bi jaay sayyidu sallallahu alayhi euh, lépp loo xam ne yiw na ci euh, yàlla la lépp loo xam ne juum nañ ci yàlla nañ ko yàlla jéggal koo xam ne nag bëgg nga jokkook ñun numéro téléphone baa ngi foofu 77 585 95 62 mu ngi noonu euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ziara ba ëllëgët incha allah suba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.